sénégalais ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax saa su nekk topp bi ngeen di topp seen TV si biir internet bi te rédaction bu seen TV point info dafa déplacé wu ñëw ba Rufisque ñëw sees si Ansoumana Dione muy président ASAM ASAM nag boo ko déggee muy association bi nga xamante ne dafay taxaw ñi nga xamante dañu am feebaru xel ñu créé ko depuis plus de 23 ans euh, président Ansoumana jonn nuyu nañ la. monsieur Wagué maa ngi leen di fay di am mbégte dalal seen TV info l'original fii ci suma kër euh, di leen wax bisimilah di leen sant di leen gërëm ci seet bi nga mel seet si. monsieur Dione euh, depuis président Macky Sall bi mu faloo 2012 yaa ngi sàkku si moom mbir yu bëri finalement mu mujj la recevoir est-ce que mën nga ñëwaat euh, seen daje yeen ñaar lan moo si xew. laaj bi am na solo. ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yonte bi Seydina Mohamed président Macky Sall comme ni nga ko waxee depuis 2012 may doo ci moom pour mu dalal ma yàlla nag dogal ci 2023 bi le mardi 17 janvier ci la ma dalal dama xëy ñu woote ay ba 9 h 10 heures. nan nga def ba mu la dalal. ak noo defee démarche bi. Euh, man maa.

ñu woo ma ne ma audience bi tey la à 16h kon tey Abdoulaye Daouda Diallo man en Ansoumana Dione aw ma fayam tax ñu bari jaaxoon nañ fa avant moom may sàkk su ñoom pour njiit réew mi dalal ma nekkul kon su ma jokkoo ak kilifa gi toll noonu mu ne ma dégg naa la ma ñu oo ma ne ma audience bi tey la ci talaata dama koy sant di ko ci gërëm. bi nga demee si audience bi yëf yi nan la demee. bi ma yeggee tooguma lu yàgg dama yegg toog tuuti ñu woo ma ne ma président mi ngi lay xaar ma ñëw fekk ci bunt bi mu taxaw moom ak ay garde corps am aide bi général Maïssa mu dalal ma ak mbégte ak honneur président Macky Sall jox ma cër gu mat sëkk ma gis nit ku mën na dégloo ku xam doomu aadama ndaxte man su ma la xoolee rek dinaa xam ban état d'esprit nga may dalale gis naa président président de la yéene jàppale benn citoyen boo xam ne nii dañ ko tooñ yéene citoyen boo xam nii bu gëm li muy def dafa am benn laaj nag bu ma laaj seetaan na benn seen benn naataango ci benn télévision mu koy wax mu le président Macky Sall képp palais la question bi. moi vous voulez la presse ou bien. vous. vous voulez la presse. Mhm. ou bien. bien sûr monsieur le président je veux la presse Vous faites venir la presse. gaa ñi filmer photo génn bi waxtaan bi nag lépp c'était à propos des malades mentaux li tax may sant yàlla bés boobu damay dem di jëli teer bi ñu ne ma amul fay moo doon cinquième jour exploitation wu teer bi. sa jour audience. waaw sa sama jour audience kon bés boobu même bu ma amatoon paas sax damay dem nga xam ne lu jot yomb bi ma yeggee sax moom laa ko njëkk wax nee naa ko sénégalais ñu ngi lay gërëm ñëpp voyage nañ ci teer bi te suis dara man maa ngi nii terre bi te fayu dara kon nga xam lu jot yomb la président Ablaye un 22 novembre 2002 un 17 janvier 2023. lay gisante ak président Macky Sall. léegi balaa ngay ñëw li nga jot a tënk président Macky Sall si seen daje bi eh, xam nga ASAM eh, dafa nekk association boo xamante ne eh, membres yi ñi am feebaru xel la. ñu bëri nag Sénégalais yi ñu dañuy jàpp ne yow da nga am feebaru xel est-ce que service de sécurité protocole président woolu woon nañ la bàyyi la nga dugg ak président rek tëju ak moom. wax nga wax ba am solo laaj nga laaj ba am solo. Euh, li nga wax nii sénégalais bari moom lañ jàpp que ne Assam dafa am ñu amee feebaru xel waaye yàlla xam na ne Assam amul benn membre bu am feebaru xel Assam ñu amee feebaru xel ñoo seen jaboot wax nañ ma ne président Macky Sall ay gardi kooram nanguwuñu woon ma mu tëju ak man. parce que wóoluwuñu la woon. wóoluñu c'est-à-dire euh, dañu ne président wóorul. ñu bàyyi laa ak Ansoumana Dione parce que dafa am feebaru xel. ñu jàpp ne dafa am feebaru xel président Macky Sall ne leen may tëju ak moom fii tamit. donc da ngeen mujj a tëju yéen ñaar rek. dañ am lu ñuy wax lépp nasaan di waraan tête à maak moom kese ak yàlla kon moom tamit nekk na nit ku jàmbaare nekk nit nit ku am fit parce que bu bu fekkee ne dañ laa gëmloo ne waa ji wérul waa ji am na ay antécédent am na ay antécédent feebaru xel. wourul nga jàkkaarloo ak mom président ne leen kii man rek may tëju ak mom waaye wax nañ dégg ñu ne président Macky Sall wax ba mu leer ne ki ma gis il n'a rien de fou j'ai vu un monsieur très intelligent très posé il m'a même taquiné que ne da nga am Mariam ma am Mariam. yéen ñaar yéen bokk Mariam. bi ko ñoo bokk Mariam. nee naa ndobaate ngeen ah. nee naa ko nag président. Euh. fonk nga sa Mariam lool. <laughs> xam naa ne fonk nga ko lool sax waaye ma ni ma fonkee sa mbos maa la raw mu ne ma i dugg ci loolu. ma ne ko ah kay excellence kaa ñu examen buñ examen maa lay raw mu kontaan ci loolu. macha allah ne ma am ngeen njaboot ma ne ko waaw ma ne ko nag ba tey. maa ngi maa ngi maa ngi gëm maa ngi jàpp parce que sénégalais gis nañ li nga fonkee Mariam fonk nga ko lool man it noonu laa fonkee sam bos plus que ni nga fonkee sa bos am nga njaboot mën a ko waaw ñaata mën a ko ñett am na ñett am ñett doom taaw wi ay seex ak seen rakk muy euh, président euh, bu gëm li muy def parce que bu gëmutoon boppam su jàpputoon li mu jàpp parce que dem nañ sax ba ne il faut am ci gàddu koor yi ñi la man bi ma génnee gis naa ci kanamu gàddu yi benn ouf de soulagement parce que dañu foogoon ne amaan na parce que am na am na benn instant euh, ñun ñun ñuy toppatoo mbirum feebaru xel bu ñuy wax bu ñu demee si ay jotaay ni ñuy soloo lépp dañ koy bàyyi xel parce que lu ndaw rek ñu jàpp ne voilà mi ngi ñi dafa am xel parce que toog na ak njiiti réew mi mu jóg ci fauteuil bi mu toogoon dem ci bureau dem si waat foofu. yàlla dimbali na ma man taalibe la dañu ma jàngal ne euh, sa kilifa sa sëriñ doo doo teg say bët ci kawam da ngay sàjj say bët président Macky bi bi mu jógee dama wàccee sama bët tey sama ay loxo rester tranquille ba ni mu ñëwaatee toog. Mhm. waxtaan bi yëpp dama ko ànd ak yar ak teggin naturellement nag man noonu laa mel ku joxe cër laa waaye it ku mën a kaf laa. Mhm. kafal naa ko reetaanal naa ko waxante nañ mais moom président Macky Sall daf ma laaj lu am solo. muy lan. Ansoumana lan ngay xaar ci man tey. d'ailleurs man foofu laa bëgg a ñëw ak yow euh, def nga ñaar fukki at ak ñaar euh, bëgg mu la bi nga demee lan moo nekkoon sa doléance ak président Macky Sall. xam nga biñ ma ne audience bi tey la à 16h dama ne fii amul loo fi waajal bëgg-bëgg bi benn kese la ñu faj ñu ne ci mbenn mi ma ne ko Abdoulaye Wade moo ma tabaxal hôpital ak Kaolack. en 2004 avec le ministère de la famille boobu temps Awege Kébé moko jité. jiite fekk na boobu avant Awege Kébé Wade jox na ko sek ministre de la santé Aw Malikor Seck bañ na ko étudier ay médecin wax ma loolu ne ma Aw Malikor Seck moom moo bañ a ne ko ute ba dem ci Awege Kébé en 2012 ñu ñoo boole santé ak action sociale santé bi ñëwaat ci loxo Aw Malikor Seck ma yóbbu ma di ko aw ma ko sa Kaolack mu visite centre bi ne waa Kaolack Ansoumana mooy moy moy gérer lii nii ak kuréelam en 2013 mu dem falfa kenen keneen donc si tënk ñi fi jaar yeb depuis 2012 ñep dañ la ko bañal. président Macky Sall rek mom ko nangul centre boobu mom rek mom ko nangul parce que ba ci mari xemes mi Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ministre yeb ba ci mari xemes Ngom daf ma ko bañal. ma ne ko kër boobu laa bëgg delloo ma ko président Macky Sall nee na ma sax mais en na yow xam naa li tax yaag aw Maréchal Seck jubawu leen njëkk njëkk te lii la ma ne ko lii kese la de. donc président moo ngi lay suivre. ngi may suivre mu jël téléphone am mu ne wool leen ma Marie xemes ngoom ñu wool ko ministre. ci audience bi noonu ci audience bi noonu. mu ne ko madame le ministre fekk maa ko naan Abdoulaye Diouf saa dañ ñu ñoo ko dax ministère la santé parce def na fi juróom-ñaari at deful dara ci malades mentaux yi Mani Xemes mii suma mag la suma xarit la suma mag la suma xarit la. Mhm. je pense que Mani Xemes mu ne ko madame la ministre maa ngi toog ak Ansoumana Dione nee na ma sëram nga Mani Xemes na ko wéy monsieur le président ensuite sama frère la mu ne ko centre boobu ci Kaolack laa bëgg ngeen delloo ko ko waaye tontu Mani Xemes. dafa fraternité bi nga la wax parce que daf ko président il faut que nous vérifier ndax ñoom ñoo ko président mais centre boobu ñoom Ansoumana ñoo ko ñoo mi ngi ay président mi ngi ne euh, déjà boobu ngay Top sen bind na technique depuis 2020 pour que Abdoulaye Diouf ça delloo mais ba Abdoulaye président madame la ministre. dello len sen centre. on va les accompagner. subvention bi man ne vous en faites pas. après mom lan la je tontu. madame ministre d'accord. D'accord, monsieur le président mu raccrocher mu ne ma en ce moment ngay ci président wax nga terrain état du Sénégal tabaxul ñu fonctionnement bi au minimum au minimum 300 millions au maximum 500 millions. Mhm. parce que dafa won ben séminaire bo xamné présidence moo commandité won ci ben hôtel de la place euh, euh, les 16 et 17 euh, octobre 2022 Je ko ci séminaire bobu wax nañ nañu jox une subvention de l'ASAM de 300 millions au minimum minimum maximum 500 millions je vous donne 500 millions une subvention de 500 millions yow jàmbaar nga te bëgg nga li ngay def yàgg naa suivre xam revendication. kese parce que man bëgguma leneen lu parce que suis pas président de la République a ñàkk chance Abdoulaye Wade tabaxal ñu pour les malades mentaux en tant que njiitu parce que nee naa président yaa ngi nii de man président assemblée waaw yow le président des malades mentaux yow yaay njiitu ñu amee feebaru parce que malades mentaux ils font partie de la population et vous êtes le président du Sénégal. mu ne ma wax nga dëkk man leneen yittalu ma

le mercredi le jeudi je suis le jeudi Je ne madame la ministre kat ce ñuy je Je ne pas jeudi vendredi peut-être lundi wala mardi Je ne président li mais est-ce que gisoo ne yow tamit danga nga yàkkamti da nga waroon déglu rek nga am ak tey ak dal pendant 12 ans yaa ngi topp ñu recevoir la waroo woon def ndànk nga xaw a dal nga jéem a xool après nga may ko même bu dee benn un mois bu dee réagiwul nga soog a woote. xam nga Sénégal lii moo ko yàq su ma xaaroon jamono gi tey jii sama ay caabi duñ nekk sama loxo normalement gis nga président daf ma ne am nga oto ma ko déedéet. mu ne utal lañ ko benn oto double cabine gis nga bi ma ñëwee la Maddy dama ñëw la Maddy dama yegsi rek di di sumeeku ñu oo ma ne ma yónnee ñu sa pièce d'identité pour immatriculation wu véhicule bi. Mhm. xam nga kii xaarul ba un mois. donc président may na la oto. maa ngi oto bi fi mu nekk nii. ok alhamdulilah. oto bi maa ngi ko yore. Mhm. Euh, gis nga nii. ni ni société bobu def ba oto bu bees compteur zéro la sénégalaise de l'automobile ñoma wo néma ne sec ñu pièce d'identité de publicité mais pour nit ñi xam euh, ñu defal immatriculation gis nga mari Khemesse Ngom munt waratoon tëdd ci kaw lal té woowu étant donné que man néna président sama sœur la mom mu ne Ansu sama frère la bu na lool loolu dëgg ci mom

c'était la personne qui s'était le plus opposée à la restitution de ce centre de Kaolack. parce que bi bi Arame Top Sène Diouf na signé euh, nañu a demandé l'avis de Marie Khemesse Marie Khemesse mo bañ ne dañu ko jox parce que ñom les médecins ils pensaient que ñun assam c'est-à-dire que lo xamni kep ont xamni do médecin rek mëno droit ci yenn une structure mhm. dama imposé wu après di nga xam li tax ma ne la su ma rek ñu ñu ñu contourner décision président bi nga opposé wo jot nga caabi yi. il a fallu que ma tape sur la table def un communiqué demander même euh, la destitution de Marie Khemesse Ngom def audio manager bi tay ji buñ ma joxul suma centre dina dàq Marie Khemesse Ngom au du ministère de la santé. jot nga say caabi est-ce que. le 24.

si boo ñu signé ko mais li tax ma naan la. su ma yëgoon ay jàmb. non gis nga président Macky Sall xam na ne sama kër gii ci Kaolack suñu centre bii buñ ñu ko joxulee gouvernement bi duñu am duñu du ma la benn jàmm waaye nag euh, gannaaw si signé nañ ko jàmm am na. dama lay xamal benn mbir. dama woote dama woo benn kilifa ca Kaolack benn kilifa ci Kaolack benn autorité ak Kaolack mun ne ma jot naa sa lettre.

am ko mu ko mais les gens continuaient euh, ñu ñu ngi doon encore ba léegi de ba léegi ñu ngi doon ñu pour contourner la décision du président de la République. gannaaw ba nga xamante ni yàlla dimbali na la suturaal na la ba nga am sa caabi kañ ngay démarrer say activité dimanche bii di ñëw la ñuy commencé désherbage centre parce que centre dafa bëri ay ñax lépp nga fa bu ma sañoon sax bu may dem dimanche déjà toute la presse kaolackoise et informé. Si je suis de me faire des choses, je vais me faire couvrir l'événement. Je vais visiter le centre. Le Sénégal est ici, il des Il des Il n'y avait rien dans les bureaux. La est c'est écœurant. Madame, euh, ministère de la Santé, ministère de la Santé, nous avons le Sénégal pendant 13 longues années. 13 ans durant. Nous ñu yàqal Macky président Macky Sall dimbali nous le 17 janvier terre bi nous gratuit jour la nous président Macky kon nous rabbi ci mois de février les sénégalais nous gis ñu jël de nous nous déjà médecin psychiatre. balaa may ñëw si euh, médecin psychiatre bi nga xam jël nga ko euh, centre bi yàlla yombal na ko jox nañ la caabi yi est-ce que bi nga xamante ne président de la république euh, nee na nañ la ko defal cent millions fan la toll. xam nga damay wax naan mbir yi ñetti tànk la woon comme seen pieu caméra yi yàlla moo ko dogal benn tànk bi moo doon oto bi oto bi génn na 4 x bi bu Euh, centre bi jotna naa si caabi yi bi auto bi la añ bi moy centre bi reer bi moy 500 millions président Macky Sall ñu bari dañ waxone ne jox na ma euh, maanaam du ma jox duma jox auto duma jox ce centre bi amna sax ba may commencé di revendiquer am ñu mën wëyi président moo ne ci gënaaw ministre bi bu la ko yéex jox su la ko bañ jox. président la ñeen ñi noonu lañu gisee waaye man jàpp naa ne président bu la mayee dara mu nekk ci loxo ministre du moom moo lay dem toppale ci ministre maanaam am ful dem taxaw ci wetu bi ne jox ma li la li la président digal cest à man maa dimbale président Macky Sall pour que ma jot li ma moom oto bi ñëw na centre bi ñëw na cinq cent millions yi moom président Macky Sall mooy joxe subvention bi te lu ma gëm la ne dina ñëw te Nous avons fini. Citoyens sénégalais partenaires, partenaires l'association, bi les ONG américaines, les sociétés sénégalaises, société sénégalaise yoo xam ne de pour accompagner Assam déjà le maire Serigne Boub pour dire, le maire Serigne Boub nee na ma wax ma gaaw lan ngeen bëgg balaa ngay ñëw c'est-à-dire vous nga lu baax si vous êtes sur la table ku si bëgg daw motax président Macky mo moo leer il est devenu le père des malades mentaux. gannaaw loolu à 70 li nga soxla am nga ko centre tamit compétence moo koy doxal. léegi nag côté boobu fan nga si toll centre bi bu dee démarré ngeen euh, yan compétence ñoo fay nekk ba nga xamante ne malades mentaux yi wala ñi nga xam ne dañuy am jafe-jafe feebar ak nan lay doxee yëf yi. xam nga mbir yi il faut une équipe médicale un psychiatre am nañ ko ba noppi joxe na engagement war nañ gissé fan wax au téléphone d'accord na ay infirmiers déjà au sein de l'ASAM am déjà ay infirmiers. Mhm. ay aides infirmiers ay assistants sociaux am y des assistants sociaux déjà kenn euh a nañu day sax bëgguna sa and ak man su

le président Macky Sall ce euh, c'est grâce à lui que le Sénégal a connu ce projet les gens veulent que ci du président mérité et pourtant c'est devant le gouverneur de devant le maire Diouf devant toute la presse kaolakoise. En ce nit ñi koy diaboliser am xam-xam la ci mbir amul Ben sénégalais bu am mois de juin sénégalais dañu gis ay téméri téméri nit yu xel ci mi ñu leen ba leen ci askan bi président Macky a dafa jël engagement au mois de mars pour présider à les journées francophones de schizophrénie parce que suñu association bi di comme nous mu dit, defoon daaw ren aussi mooy màggal les jeunes francophones de schizophrénie c'est au mois de mars Et il a pris l'engagement. en ce moment damay ñëw ci centre bi gis ni ngeen di liggéeyee gis ni ngeen di jëlee en charge les malades mentaux parce que dama ko proposé won pour mu def le lancement du retrait des malades mentaux errants mu ne ma damay bàyyi ba nga dem kaw dem ma ñeu fekk len fa au mois de mars me présider boobu les cérémonies. muy engagement bu am solo. Mhm. li nak comme niko sen ben natango naataango comme niko ko xamé

Sénégal bari na problème est-ce que seen waxtaan si loolu rek la yem wala am na yeneen problème yoo xam ne jot nga ko aborder ak président Macky Sall. xam nga comme ni ma waxee sànq bi ma xoolee président Macky Sall gis naa ne nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku noppi nag waaye nopp bi topp tek tekkiwul ne ragal la dama ne kii comme Ablaye Wade en 2002 bi ma ko xoolee dama ne kii psychologue la su su ma fenee dana yàqu heureusement que man mënuma fen li ma laaj lépp dama ko tontu bi moo xoolee président Macky Sall dama ne kii day naa yem tout court ci ci li mu fi indi leneen lu ma laajul ma maandu ci kilifa la amul jot du ma fa nekk di ko wax yooyu yenn yoo xam ne ni concerné wu ma wax ñu leneen lu dul ñu amee feebaru xel bi ñu waxtaanee ba jeexal mu ne ma Ansoumana euh, amul leneen lu la lu la soxal ma ne ko président xanaa di la sant di la gërëm su ma génnee. dinaa wax askan bu Sénégal lu baax li nga defal ñu amee feebru xel parce que jàpp naa ne njiitu réew bu demee bay dimbale ñu amee feebru xel defal la ko pour toute l'humanité parce que ci fii ci biir Sénégal ay sénégalais am nañ feebru xel ci bedd bi ay guinéens ay nationalités yu bari ay français sax soo moytuwul ñu bare ngi fii am feebru xel kon ñooñu bu leen jëlee en charge rek dañ day mel ni àdduna bi yëpp la ñuy dimbale. japp nga ne ñi nga xamantene ne ñoo ngi ci biir réew mi ñu am feebaru xel est-ce que centre bi mën na accueillir ñooñu ñëpp. laaj bam solo ngi ni centre bi dana jël ba 200 cent malades par période ba 200 cent malades c'est-à-dire dañu jël par tour de rôle manam Dakar la ñu njëkkee département de Dakar la ñu njëkkee ensuite Kaolack ensuite djourbel ainsi de suite c'est-à-dire. Euh, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans au maximum, Kaulak dana fajj mbolé mu ñu amé faible xel nek ci mbéd bi c'est-à-dire Kaulak ni vit sa position centrale avec avec ce siège de, l'Assemblée l'Assam Kaulak deviendra la capitale des Marmanto Iran xam nga Bouchra Bouchra lañ ko sant Bouchra moy mbekté té ki amé faible xel bu génné ci centre bi mbekté lay génné président Macky Sall mooy def mbégte si ñu am feebul xel te nit ki bu fekkee ne euh, njiitu réew mi def na mbégte si ñu amee feebul xel yàlla suñu borom moo koy mooy delloowaat askan bi mbégte boobu noonu yàgg naa wax ne bés bu Sénégal jublu woon ci problème ñu amee feebul xel yàlla dina wàccee naataange boo xam ne ak xéewal goo xam ne nii kenn du xam fan lay toll moo tax il faut ma encore une fois ma gërëm njiitu réew mi Macky Sall. ma nee na ma benn bi de ba mu dugg see. Ansoumana yaa ngi bind rek <laughs> Ansoumana yaa ngi bind rek. journaliste sax loolu la ñuy wax Ansoumana chaque jour day bind. ma ne ko may bind di la sànni xeer rek président mu ree quoi <laughs> ma ne ko président may bind rek di la sànni xeer. donc nga gis ne nit a ngi nii ku ku mën a encaisser parce que njiitu réew. gannaaw bind bi nga bind si moom lépp taxul mu mer recevoir na la. mais président avant fan yi may recevoir mais wax naa ko am na benn sama benn xarit bu nekk ministre de la santé. lundi lundi lundi ba may génn ba may jógee ministère di génn yaa ngi ne wóor mu woon présidence nga jëm waaye boo demee palais bu la gars yi jàppee fan li nga wax président Macky ma ne ko pourtant fa laa jëm nii de <laughs> pourtant fa laa jëm nii de. Mhm. Sadibou Niasse Niasse mhm. nekk DPRS. Mhm. Sadibou Niasse nee na dafa xëy màddi rek gis moom ma taxaw palais mu ne mais c' est pas possible ensuite ku yow ko. démb laa koy tooñ nag bul président jàppee te toog président de la République. nga président Macky Sall. président Macky Sall. non doo ko waxati dara parce que boo ko toppee 12 ans di bind si moom li nga soxla mu defal la lépp war nga ko bàyyi. xam nga ci mbirum ñu amee feebru xel cest dire kuy liggéey amuloo jot wax fi mu nekk nii président Macky Sall daf ma sas man daf ma sas parce que projet bi tey projet am la. non man xam naa ne sas na la mais xam dama lay laaj président Macky Sall bàyyi nga ko sandi xeer yi nga ko doon sandi. bu ma gisee mu jalgati jëm ci beneen wàll dinaa ko ko wax dinaa bindaat. ne lii yaa ngi jalgati mais ci mbirum feebaru xel moom wax dëgg fa yàlla gëwuma ne man kay maa yore président léegi man kay maa man kay maanaam su bind di moom ma war a bind ci man si ci mbirum feebaru xel mais en dehors de de la maladie mentale bu ma gisee ne jalgati na sur on autre point na ma daan def lay def damay bind parce que bind bi may bind daf koy dimbale. xam nga moom lay wax euh, Marie Xemes Ngom dégg naa Marie Xemes Ngom sama attitude bi ma am neexu ko. man ay projet mo xam moom may xam si ngoom moo xam bu fekk ne lima lima lima xaju ci kawam moko nakari parce que parce que mom méritul nek ministre la santé dama sama barti kaw si gëm président Macky Sall la waxal lepp mu encaissé en tant que président de la République xamne mom jam la Macky Sall man sama jam la man ñun askan bi suñu jaam la ñu lay liggéeyal ñoko sañ wax yenn yi mu nangu. est-ce que mo jam opul dedet non. man Ansoumana Dione bés bu ma nekkee njiitu réew jàmm lay doon c'est ça il faut nit ñi xam loolu euh, Ablaye di jàmm la woon Abdou Diouf jàmm la woon parce que loolu may wax ji un chef d'état il est là. donc yow gis-gis boobu nga si am. mais Macky Sall ñun ñoo ko moom suñu alal la moo moo Macky saal non seulement c'est nous qui devons le c'est nous qui devons le protéger dañ ko war di ñaanal man mosuma jóg di ñaanal mag Sall. malgré la koy ngagn yépp dama ko daan ñaan la te ku ko bëgg la man ko bëgg président Macky Sall la malgré li ko daan ŋañ sa personne dama ko bëgg parce que mom lañu yalla jox manam manam manam kep ku gëm yalla da ngay nangul Macky Sall bo gëmul yalla do ko nangul Macky Sall ku mu neex ku mu nakari man na jot ak ku mu ci doon ba décembre 2020 euh, fi ba 2024 Macky Sall moy sa jitu rew donc man ëmb ci sikk sàkk ñoom ay jaam lañu suñu jaam nag wax dëgg yàlla fan nga gisee jaam boo xam ne nii dañ la naa demal liggéey nga naan lu tax nga may sant liggéey man xamee su ngam jaay envoyé naa ko texto ce matin tey ci suba rek nee naa ko bonjour madame maa ngi lay woo wuyuloo ma te xaw ma lu tax waaye li nga nekk ministre de la moo tax ma lay woo bés bu ko nekkatul du ma ko woo fii laay wax ak moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye bu fekkee ne nanguwuloo maa wuyu tekkil sa ndombo tànk tekkil sa ndombo tànk bés boo dee ministre de la mais doo doo doot ma la woo dinaa jël sama téléphone léegi woo ko sa sa seen kanam fi nga gis dana sone te du wuyu président Macky Sall wax dëgg yàlla nekk na ku ku ku nangu en ce moment moom la doon sànni xeer li taxoon mu may sànni xeer pour réew mi la kon dafay jaar ma déglu ko te satisfaire ay revendication fi nga daanalee Ansoumana Dione foofu laa ñëw mooy mbirum réew mi ñëpp xam nañ ne euh, période bi euh, xol yi neexuñu euh, diggante opposition bi ak ku gi yow lan ngay mën a wax président Macky Sall ak ku gi pour apaisement mën a am ak troisième mandat bi lan moo si sa position. xam nga ci troisième mandat bi lay njëkkee président Macky Sall wax na ba mu leer ne bii mooy mandat bu ñaareel mandat ak mandat bu mujj kenn déggul président Macky Sall. mun na day nekk candidat en 2024 kenn dégg ko boobu leer na beneen bi mooy que ne opposition bi opposition bii ma gis te dama ko yàgg di wax seen yéene yëpp mooy daaneel nguuru mag sàll te waxtam jeexul réew mi kenn du ko këf kenn du ko foqati askan bi mooy tànn njiitu réew. est-ce que jàppoo ne opposition bi ñoom dañuy fayu. xam nga sénégalais xamul ku tooñ mais ku fayu la xam. xam nga fayu Fayou, man Ansoumana Dione toj ma pendant 13 ans 13 ans Et ñu jox yoon atte gis bi man gisuma problème gisuma suis animosité président Je Sall que ñu dénk askan bi que askan bi rek moo ko mën a ci loxoom te tax yàlla dafa sax na en 2012 en 2019 mais ils étaient candidats askan wi ne gis naa leen waaye Macky Sall moo ma doy waaw léegi la lañ bëgg léegi. yow nee nga yoon mooy àtte. ma maa ngi ñëw ne askan bi dem na ba nga xamante ne amatul yaakaar si yoon boobu ñoom dañuy jàpp ne Karim Wade ni mi demee Khalifa Sall ni mu demee donc noonu la bëgg a jaarale Ousmane Sonko. xam nga loolu waxu nit ñi la man en ce moment jon keroog wax naa ko président Macky Sall ci nguuram mag Sall man la yoon njëkk dugal kaso man mii wax naa ko ci audience bi en 2012 le 13 septembre 2012. la def sitting buntu palais police jël ma yóbbu ma commissariat plateau commissariat central déféré à reverse jugé puis relaxé purement et simplement parce que man dong la won gis nga fi un leader un un vrai leader da ngay ñeme ñu japp la da ngay ñeme ñu atté la man moment Dione ba ma gisé na atté bi jaarul yoon na ko wax kaw Karim wad kaw Khalifa Sall Khalifa Sall limu def man parce que am lo xamni ne ci nan non la def ma def ko du lay lay moy gis na ki di def li ma japp na du yoon ma bayiko li fi nek ni sun kanam cest un leader da ngay du de n'est pas la justice la justice sénégalaise elle est là da ngay dem taxaw bu justice bi jalgaté man en ce moment la je taxaw man justice sénégalaise jalgaté na sur un dossier yaa a combien de dossiers présentement mais nit ki nag bu fekkee ne nit ki da dañ la woo ci yoon nga ne doo dem ci yoon mais kooku yabul yoon mais askan bu Sénégal lay yab parce que la justice elle est rendue du peuple sénégalais bu la justice wooye da ngay wuy ji Cheikh Ahmadou Bamba ka kan ma ko woo du du du ma ko woo gouverneur bu Saint-Louis moo woo Cheikh Ahmadou Bamba est-ce que woote na résistance dafa wuy ji. dem na ba fu fu mu dem ñu ne ko non bàyyil ñu xeex mu ne dem na ngeen dem toog dem na euh, Saint-Louis ñu déporté ko pourtant résisté wul de dafa dem ba ñu ko doon tooñ ba ñu ko doon néewal doole xam ne moo ne si dëgg ñu indi ko mu ne leen jéggal naa leen ba mu ngi di tey jii ay sëtam ngi tey jii ñu leen di ziar kon bu fekkee ne yooyu yoon moo la woolu man police fekk na ma sama kër à 3 heures du matin ci temps Ablaye Wade en 2006 jàpp ma sama biir njaboot. yobuma ma fa la mujjé ma ngi ni tay un leader da ngay da ngay am fit leader bu né ne wulo police japp la man ñaata la ma woo ma wuj dik donc li ni dekk bi nañ fexé ba xamné kenn mënu ko yëngal ku yoon wo demal wuy ji askan bi bu fekk né yagit am na ñu wax. pour apaisement am ban appel ngay lancer euh, président Macky Sall ak opposition bi. man awma luma wax président Macky Sall parce que askan bi moko wolul wóolu ko te lim ko denk jeexagul ki ñu dénkagul man ñom lay waxal la rue ne peut pas mettre fin au régime de Macky Sall opposition bi la man sama baat kaw parce que andona ak ñom man abla Wade teyna sama loxo man ma di Niang ci temps coalition du non ñepp tok man tek ma taxaw ay sédina fa Abdoulaye Wade téye na sama loxo ni ñëpp toog ma rek ma taxaw mu ne ce jeune là je peux compter sur lui mën Daniel daaneel on peut faire comme au Burkina Faso on n'a pas besoin de 1000 personnes pour faire une révolution 10 personnes 20 personnes hop c'est parti et ce jeune là mën na ko keroog laa gars l'opposition. opposition keroog la bàyyi ande opposition ba may wax parce que man je suis un démocrate je suis un républicain Macky Sall ànd ma ak moom kontaanuma ci ni muy doxale ba tey jii Macky ba may wax kontaanuma ci li mu yore parce qu'il n'y a pas que le problème des Martemanteaux xëy na man Martemanteaux ñoo ma intéressé par rapport au Martemanteaux tey jii ngàccee ngalaama daan un ko may 0 sur 20 mais tey man Ansoumana Dione ñun Assam jàpp nañ le président Maxal à travers cette prise en charge des Martemanteaux qui va se faire incessamment est devenu le père des Martemanteaux Il y a fay président Maxal. Sall jaarale ko ci yéen mu si ñuy toppatoo ñoom feebaru xel. ñoo ngi lay jaajëfal Ansoumana Dione yan kaddu ngay daanalee si lu gàtt rek. di leen gërëm di leen sant di wax ne <coughs> opposition bi nañuy respecté askan bu Sénégal dañu ne yeewi askan bi man Ansoumana Dione kenn tënkuma parce que ci askan bi laa bokk ñoom kay lañu yeewu dañu war a wax yeewi nañu yeewi opposition askan bi nañu yeewi opposition un leader doo leen wax xale yi. kaay leen ngeen deyal ma déedéet leader dafay pare dee pour askanam man je si sacrifié pendant 23 ans ba tey ji aw ma dara pour mon pays pour les matmanto donc may di gëm di sant di wax di wax président Macky Sall euh, na xam ne yàlla moo ko fi teg ku dul yàlla mënu ko fee jëlee na dalal xelam ci loolu te xam ne nag deux mille vingt trois bii la ñu nekk nii bu jeexee mooy mandaam jeex na man Ansoumana Dione gëm naa ne. le président Macky Sall ne sera pas candidat en 2024 parce que man Wagué dama jàpp ne man ni ma ma ma ma ni ma amee ngor man man ni ma jubee man ki am fulla ba ne ma jeexal naa damay jàpp ne jeexal na parce que buñ ci yeggee du laajaat ñoo ngi lay jaajëfal bu baax Ansoumana Dione ñu ngi leen di suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ñu am mbégte bu yaatu seq ak waxtaan euh, président assam muy Ansoumana jonn waxtaan ak moom euh, daje bi nga xamante ne daje na ak euh, président Macky Sall mu xamal ñu ne am na satisfaction ñoo ngi leen di jox dig daje si yeneen i entretien